ba ànd lii ko yekki lu ay birig lu taxale jàmm te yoroo jàmmi bare ne si tegu nañ juum a bëgg xam lu xew fii may ki def bës bi yaay def ak man seen fii man ak booy ne si ñemi fii jarul laaj te ku man dama indi seen dessin man adama seen ku man fële ca almadi nee nañ pour ma dégg wala progal seen bi yëg seen fii wala seen pour ma jëlam yàq rek ngeen man sama koñ sama waa kër ñëpp xam nañ ne du ma temps jox naa leen cër bëggee nekk papa jam yu bari waroo si man nga sama sa bopp ñëpp xoolal la bu ko bëgg ma topp sama nafs ba ñàkk sama suba boo dee ko si biir tas suur ma ne ñàkk ma fu la gëm na ko fay la koon du ma dugg si bu si ma naa kii ñi na lee man nga sama boo demee ba xamata boo jëm Merci donc à euh, euh, Matos le PDG donc de G2H euh, Music wax nous présente nous sa Matos plus connu de Matos Mamoudou Ballet, Nek euh, artiste n'ek euh, PDG du label Dutet Music euh, c'est ça Matos. alors tay di ni ñu ngi ce ce studio de production wax ñu fi naka la. bu xew fii moo tudd Dutet Music. bo xolé boo xoolee lan lañ jël ghetto hip hop lañ jël abré abrégé ko def ko ghetto 2 as music donc bo xolé ghetto moy lan moy li nga xamanteni hood la ak hip hop hip hop fan la judo ci hood.

depuis 26 février 2013 euh, la création bi ñëw après par la suite ñu def di def ay projet ndànk ndànk ndànk ndànk ba tay ji ñu egg fini euh, par la suite actuellement dañ bëgg génne benn pro benn benn benn projet benn projet bi ñuy naan euh, album maxi moy ki nga xamanteni artiste bi ñu naan Mjo Sorino bi ñu wara a le 13 février au bibliothèque de Bali actuellement ci loolu lañ nekk ndax bo xolé à base dañ bëgg jël talent yi nga xamanteni ni ñoo ngi ici au niveau de Bargny jëm leen génnee jëm leen produire jëm leen promouvoir ndax euh, actuellement franchement ñun question ñoo mën a jàppale ñi nga xamante ni moo di artistes yi. Mm. loolu moo tax euh, ñu taxawal studio bi nga xamante ni moo di Duty Music. bi mooy seen première fois. bien sûr c'est ça. alors léegi naka ngeen nar a def la la promotion bu weesoo génn bi nga xam ne moom ngeen di génne euh, maxi bi le 13 mai prochain. Euh, ak actuellement ñoo ngi ci avant maxi bi euh, pendant après euh, ndax boo xoolee bëgg franchement album bi nga xamanteni modi tanku kanam ñu xam ko all around ñu xam ko fenen ak fenen ñu xam ko fi nga xamanteni modi moo di univers hip hop galsen xam ko univers international ndax franchement li nek ci biir album bi man nga ko lek li nga xamanteni mo ngi mo nek fi actuellement. Hmm. Euh, donc euh, après lii bi sortie bi date de sortie bi le 13 mai au centre socio-culturel El Hadj Ndiouga euh, lii bi au centre bibliothèque bi bibliothèque bi n'est-ce pas. Hmm. donc prévoir nañ def ay concert juste après Korité bi def nañ dañuy dinañ def ay concert dinañ def tournée. Radio yi nga ici au niveau de Dakar pour gën promouvoir mbir mi ndax bëgguñu mu nekk loo xamante franchement comme euh, max yi nga xamante wala ici au bëgg promouvoir de telle que dinañ ko all ci franchement alors c'est vrai que tey jii nii euh, yi nga xam hip hop yombul. ngeen def fu ngeen le euh, pour ay production. <laughs> Ah la de base. ñun socialité living bi dañ koy dundal fii nii mooy kii day am benn cent franc andi kii am benn fukki dërëm indi kii indi beneen loolu moo formé studio bi boo xoolee lool mooy li nga xamante ni franchement loolu mooy suñu secret ndax boo xoolee depuis mille 2013 ñun yàgg nañ taxawal benn quartier bi ñu naan Guéréo Hip Hop ay c'est vrai que hip hop yàgg di colo ah. c'est ça c'est ça euh, Moi, euh, euh, quoi. hip mm. depuis avant 2013 mais du jiiteet musique après le 26 février 2013. Mm. après par la suite di dajale di jël ay des di concert lépp après ci ñëw di jënd micro di jënd ay machine di baffle. quoi. ben ben c'est ça après par la suite loolu moo jur li nga xamanteni franchement lool ngay gis fi actuellement tay donc li tay jii nii amu ah, ku ne mu ci yeen quoi kenn ku nek ruwa mu ci quoi. ah lool lool lool la loolu lool moo tax euh, loolu suñu secret. mais mais lan moy seen lan mooy seen jafé jafé yeen problème ngeen di faral di rencontrer euh, pour pour euh, mën a def carrément lépp loo xam ne seen projet la. c'est ça euh, nda bo xolé ñun bon franchement ñoo ngi dajalé di def amul ben autorité bo xamanteni ni bon. ba mën nañu wax ni xaalisam dugg na ci biir studio bi. Euh, ñun ñooy suñu suñu ay avec notre maigre moyen yi nga xamanteni am nañ ko lool moy li nga xamanteni modi studio bi mais franchement euh, dina doon gëna a euh, lii dina gëna nice comme bon autorité yi nga xamanteni ni ñoo ngi si bari ñoo appuyer li nga xamanteni moy franchement li ni artistes yu bari ñi dañ ko parce que dégg nañ que si tout à l'heure si intervention bi nga leen di wo lu bari waaw c'est ça man toujours dama leen di wo dama leen di wo dama leen di wo ndax franchement lii artistes yi dañ ko soxla. parce que jeunes yi surtout. Hein. voilà c'est ça ndax bu xoolee bari ñi quatre-vingt-dix pour cent jeunes la te quatre-vingt-dix pour cent yi mën nga boo ci génnewee da nga génnee trente wala quarante pour cent yoo xamante ni hip-hop la ñuy dund wala arti ay artistes lañ wala boobu leneen ak leneen ak leneen. Hmm. Euh, mooy li nga xamante ni toujours dama leen ci woo ñi nga xamante ni moo di autorité yi hmm. ndax lan euh, lii nii ñoom ñoo ko waroon def bu demee ba ay jeunes dajaloo nañ def lii nii euh, yoon la ñu jàppale leen quoi. Hmm. toujours dama leen di woowaat di leen woo leen woo leen woo mais franchement bon. xam nga rek bari ñi mooy loolu. dafa métti ah. <laughs> mais mais ba amul ku ci non non non non franchement. Hmm. Euh, lépp loo na fi. suñu propre moyen ak suñu maigre moyen mais de plus du bon du ma di leen woo mooy nga euh, autorité ñoom ñoo war a mën a jàpp si lii ñoom ñoo war nga ça veut dire tout simplement li nga xamanteni regrouper na ay ay ay ay associati ay association nga len di jema jappalé jàppale. di def social surtout mais voilà c'est ça donc euh, franchement dañuy bëgg dañuy neex trop trop trop buñu gisé kuñu ku ku ndax boo gisé ku lay jàppale da ngay gëna fier ci li nga xamanteni yaangi ci euh, c'est ça. alors c'est un projet musical au-delà de sortie maxi B hmm. dans de manière générale hmm. culture. C'est un projet exactement là, la foofu la ñuy terminer euh, ñun ah, euh, projet junior ñu franchement bari na bari na bari musique musique culture de c'est ça culture de manière générale. ay artistes mbalax yu ah. parce que effectivement est-ce que fi mm. kuy def hip rek fi non non non non non. artistes yu même son ça veut dire que ni

Euh, di nga fekk suñu. sur Facebook wa sur sur Facebook même sur. Euh, YouTube YouTube g 2 Music di nga fekk suñu projet foofu noonu. donc pour dire euh, que ni tonkuñu suñu tonkuñu suñu bopp quoi ndax bëgg bëgg nañ franchement génn fi nga xamante ni nekk nañ ko. te musique rek moo la ko mën a permettre musique nga may nga mën a nekk sa biir samba hmm. def benn son bu nice. adduna bi yëpp yëpp voilà c'est ça donc loolu la quoi. léegi lan ngay lan ngay wax le public. Hmm. pour le 13.